lan la mun ne moom affaire bi dafa mel ni fii la xewee ñu ne fii yëpp muudu muudu yëpp dañ may yërëm dañ may yërëm te loolu muy xewee fii dakaar mais dafa mel ni États-Unis New York foofu la xewe woon instant boobu moom New York la nekkoon mais dafa mel ni New York affaire bi foofu la xewe woon tu vois di ko wax di ko wax di ko wax mu ne nag mais yow li ngay def nii baa xool nga ko mu ne ko waa xool naa ko wax mu ne ma xool nga ko bu baax rek yow daal comme liggéey daal tàggoo demal nga liggéey du ma la tere mukk liggéey. bi ñu ko tàmbalee nag nag muy affaire bu jafee def parce que dafa laaj koppar yu baree baree baree bare parce que un café avec dafay émission bu diis parce que ñu bari bu ñu gisee un café avec nii dañu yaakaar ni rek film bi rek la ñu gis mais liggéey bi ci ginnaaw ak alal bi ci ginnaaw moo moo bari loolu moo tax d'ailleurs nit ñi film bi mën leen a neex. ndax génn beeg dox beeg yooyu ak te yooyu yëpp dafay laaj alal donc il fallait ñu trouver ay sponsor buru woon ñoom c'était pas possible parce que mënuñoo def émission te fayuñu euh, ñii def émission bi ki koy réaliser ki koy bind ki koy bind da koy fay ki koy da nga koy fay ki yanu kii dawal oto bi da koy fay ki yanu bagage yi danga koy fay kii taal yi danga koy fay ki kii kii kii kii kii kii chargé de production bi danga koy fay kii maquillé da nga koy fay ñépp dañuy fayeku mu nekk ay salaire yoo xam ne kenn xamul nu mu toll bu dul woon ñi jàpp ci émission bi loolu du mun a nekk mais il fallait que vraiment ñu yaatal ñu bañ a am concurrent ci biir émission bi ñu def une publicité intuitive ci biir daal di koy yaatal. forme publicité bi ñu def café avec je pense que musul am déjà c'est déjà contesté les professionnels ñi ngi koy contesté. Boubacar ni ma nañu dem Orange parce que comme ñooy sponsor bi fi ëpp doole nañu dem waxtaan ak ñoom déjà ci concept bi ñu ñëwee Orange. waxtaan ak ñoom bi ñu njëkkee gis madame Sidibé temps yooyu moo nekkoon orange ñu waxtaan ak moom mu ni moom il faut ñu bindal ko affaire bi mu xool ko parce au début daal affaire yi kii ko woon waaw waaw mi ngi doon am xel ñaar daal waaw parce que daf ni moom émission yi généralement yi def télé Sénégal du am suivi série yu bari nit ñi dañ koy tàmbali ba ci yàgg du ñu am alal pour yeggale ko te moom bëggul engagé orange ci loo xam ne nii daal vraiment da ngay waaru alors bi ñu demee bindal ko ko indiwaatal ko ko ndaw si xool ko ñu dugal ci nag loo xam ne nii moom moo tax yaakaar naa ni mu nangu parce dañ ko indil façon publicité boo xam ne mosul am Sénégal dañoo ñëw ni ko léegi au lieu ngay dugale spot publicité bi day nekk ci biir film bi waaw maanaam bu fekkee ni danga bëgg ñu wane TV d'Orange Boubacar ak jabaram dañuy toog taal télé bi TV d'Orange su fekkee ne da nga bëgg benn produit nga bëgg ko jaay Boubacar ak jabaram dañuy dem jëndi ko ci biir film bi. la collaboration aussi am na benn ouverture d'esprit parce que boo gisee publicité bi euh, nu ñu koy intégrer ci biir parfois ça prend peut-être même des proportions yoo xamante ni sometimes dina gêner un nit ñi mais euh, un pro un produit comme ça a besoin d'être financé et pour que ça soit financé il faut que nga jox quand même quelques largesses aux nga xamante ni accepté nañ accompagner la mettre de l'argent Euh, donc euh, ces partenaires là aussi on les remercie au passage parce que c'est une production boo xamante ni ñun ak euh, Cheikh Yérim Seck Boubacar ñoo ko bokk en fait. patron il dit ça ça mouton d'Arabie Saoudite tu as payé là c'est pas. doucement doucement oui patron. non il faut aller chercher des gars Ah, patron, il était bien. Action. Kati yaa ngi toog. Ndeye maa ngi toog ça va. ça va alhamdulilah. nga jaar ji ba jaale. kii xam nga moom. Ndeye. Ndeye. Ouais, vous na a... euh, je, je, je veux voir si je peux amener ça à ma soeur, quoi, à doon dawal. kolos moo doon dawal. pour pièce. mais c'est sûr bu ñu ba pare di nga ñëw wala soir après nga fay ko. après la fête dina la indi. émission bi émission d'interview la woon euh, de réception la woon danga doon ñëw di recevoir ay célébrités ay mbër. affaire yooyu ci biir kër gi ak samay xarit yu ñëw di seet si soxna si ci biir kër gi ñu leen di wan suñu façon wu dund d'accord mais dafa am benn réalisateur réalisateur boo xam ne ni ñu tudd Leuze Leuze dafa am benn koo xam ne dafay bind ay scénario ku muy collaborel ku tudd Ahmed Fall Diagne ñoom ñaar ak Aminata Diop Thiam ñoom ñoo indi émission bi ci tournure bi. je me rappelle dama njëkk a def émission bi ak Salam Diallo. après mu voyagé yeneen émission yu premier ministre bi yi mu yëkki léegi yooyu def bi ma dellu mu continuer bi ma defee je pense ñaar ñett ñeent le producteur m'a appelé Cheikh parce que dafa amoon ay écho tu vois bi mënoon na leneen lu lu nekk ci biir quoi mënoon na ak ma ne ko même man dama defoon boobu boobu constat que fekkee interview la te couple bi dafay xam dafay day lassant quoi après ci la ma wax ne ma léegi foo ñu bind mën na ko am problème man nag amu habitude du bind mais am naa sama benn xarit boo xam te ni que damay liggéeyandoo ensemble sama projet yu bëri su ma ci nekkee moom day ñëw tax ma ci jàppale bu tudd Ameth Fall Diagne ma appelé euh, wax ma pour ma dem gis euh, rencontré Yérim ñu dem toog donc euh, ma expliqué ko un peu man ni ma ma gis-gis ak li laa ci war a mun a apporter on est tombé donc ñu may ma liberté totale quand même pour ma indi li ma xalaat donc première état bi mooy bind benn benn bible pour un peu wax personnage yi ni ma leen gisee yàlla ñu war a yokk ak intrigue yi nan lay nan lay continuer ko dans temps ba affaire bi war a jeex ci saison bi quoi. au bi xalaat nañ scénario bi xam nañ fi ñu jëm xamoon nañ aussi fi ñu naroon a yóbbu film bi affaire Boubacar parce que man un café avec je dois avouer que nag xaw ma ci dara nañu waxante dëgg rek mais bi Ahmed Fall Diagne ñëwee toog fii ñu waxtaan. mu ni ma dinaa la bindal scénario boo xam ni histoire bu doy waar lay doon boo xam ni bis bu ne day am lu ciy xew te dina dem ba waa réew mi bëgg ko. noonu lañ ko transformé mu nekk kase euh, mu nekk fiction parce que il fallait que ñu bind tu vois dugalal ci yeneen personnage ak yooyu et format bi nga xam ni par exemple dañuy indi invité toujours benn spécialiste wala benn célébrité je ne pense pas qu'à long terme dina dina continuer. donc moo taxoon ma ni bon peut-être ñu mun a dugal yenn personnage yi pour développer côté fiction bi hmm, gën ko élargir gën ko kii donc loolu moo nekkoon euh, loolu moo nekkoon euh, kii bi daal option bi au départ mais en termes d'inspiration donc à part le fait que la matière était déjà existante ah boobu démarré ngeen ba pare. biir émission bi nag xam nga kii moom mooy Miss Sénégal. Mm-hmm. Euh, ñuy ànd ci biir émission bi war la dalal tey jii. da nga dal mm. tey. bëgg nañu wurus ñi naan bëgg nañu or yàlla omat na la ba dénk na la ngalam ngalam nga yor de ngalam nga yor mais man dama bëgg combat ak yow de pare nga <laughs> si pare naa ou pas <laughs> yow what's up man DJ Boobs yow Alaaji Diouf siyaare nañ la am fine man good well, I am so good. <laughs> waa gis nga katee ngoog ça il faut dire que succès un café avec nag man daanaka doonuma ci dara. nañu waxante dëgg parce que lu ci ëpp ni ko nit ñi di seetaane ci tele bi laa koy seetaane man dinañ ma woo rek bu ñu soxla xaalis. wala bu fekkee ni dafa am ay nit ñu bëgg ñu ñëw ci ñoo xam ne xam naa leen ma woo leen. mais succès bi surtout ñi ko ñi ko def ñoo ko moom. ls moo def production bi LS2 entreprise la boo xam ne yaakaar naa ñëpp xam nañ ko. boo xoolee équipe bu ls ay jeunes kese lañ euh, soo ko nattee nekk na ci 19 personnes yoo xamante ne bu ñu xëyee LS2 la ñuy ñëw donc 19 yooyu c'est ay jeunes euh, am na ay stagiaires yoo xamante ne ñu ngi génn ci ay école de la place bu ñu ñëwee dañ leen di jàppale ci seen formation. xoolal non booy xoolal non da nga booy. franchement ko xoolal man su leeroon ni da fa bàyyi trace kon ma dafa ko sama bopp booy. xam nga naa ko jox ñeneen ñu ñu jàpp ko. booy xoolal amoo xool wuy ma amoo dara loo may wax xam amoo dara loo may wax yow instant bi ne bu ñu remonté ci yow dañuy agsi ci man te bu ñu ci bubs ah,

conditions yëpp réunir ñu ko te boobu métti woon na lool métti woon na méttiwaay boo xamante ne mën naa wax ne keneen ku mu daloon émission bi mën naa arrêté mais comme ñun dañu am doole kàttan ci euh, dañu am doole boo xamante ne mooy dañu mànkoo nekk ay frères tax na ñu mën a surmonter difficulté yooyu. benn famille woon daal boo xamante ne que même su amee problème sax kenn du ko mën a manifester tu vois et puis en plus dafa demoon ba benn moment dafa nekkoon sas parce bi ñu duggee ci fiction bi mu commence intéresser Sénégalais yi tu vois donc ñu xam ni que Sénégalais bëgg nañu émission bi donc il fallait que ñu gën ci nekk quoi xam ñu gën ci nekk donc voilà amoon nañu ay ay difficultés yu yu bëri nag yu bëri bëri parce que émission bi jàll dimanche on était obligé de le tourner entre mardi ba jeudi ba vendredi et puis ñu monté ko peut-être ba vendredi wala samedi. da daan yeewu huit dem tourner xamoo ban heure ñibbisi. mën nga tourner tout la journée ba ay 11h minuit commencement émission yi noonu la doon demee dangay ngay yeewu 8h des fois nga yeewu 10h ça dépend ci heure bi réalisateur bi di woote nga dem tourner soo demee xam nga ban heure lay ngay wàcc di nga wàcc des fois ay minuit une heure du matin. loolu moo taxoon émission bi metti boo gisee man ma jeex takk maigrir dañ doon xëy suba dem tourner ji Radisson jóge Radisson dem tourner ji Elton. juge Elton dem tourné ji ci villa bi juge ci villa bi dem tourné ji ci hôtel ba juge ci hôtel ba dem tourné ji dem def ay scènes yoo xam ne dañuy dawal ci tali bi mu metti trop trop trop en plus aussi sama équipe bi je dirais pas que du mais la plupart ñi ci nekk c'est-à-dire que defuñu deux ans d'audiovisuel c'est-à-dire que ñenn dañoo génn école rek ñëw donc c'était un peu compliqué tu vois ñu ngi doon doog a mënuñ woon xamuñu fiction tu vois donc c'était c'était très difficile. am na benn moment aussi xawoon nañ sonn tuuti parce que nag sponsors yi aussi seen rythme dafa xaw a yeex mais lépp yàlla defar na ko c'est-à-dire sponsors yi engagement yi ñu amoon ci ñun lu ci bari def nañ ko et ñun aussi metti woon na mais jëm nañ taqale ba nga xam ni daal film bi dem nañ ba jeexal ko parce que nag question d'honneur la woon parce que même bi ñu demee ci orange boo wax ak ñoom ba pare dafa am ñeneen ñu fa jaar ni leen. ñii di leen wax naan leen di dañ leen indil une heure par semaine pendant toute une année du dëgg ñu leen loolu kenn mënu ko Sénégal. je pense que Sénégal amagul woon type euh, de programme comme ça boo xamante ni ça tient sur cinquante deux numéros mu nekk benn fiction am une vraie histoire boo xamante ni nit ñaa ngi koy raconter de jour en jour euh, sur un format relativement court. Euh, moyen j'allais dire de de de minutes man de mosuma gis hmm, au niveau de la production euh, audiovisuelle sénégalaise benn série de cinquante deux épisodes d'une heure boo xam ne on n'a jamais rediffusé parce que bu ñu euh, production dafa arrêté wala pour x ou y raison donc ça c'est une performance boo xam ne ni quand il faut la saluer quoi loolu c'est c'est c'est un mérite de toute la production je pense c'est pas évident c'est pas facile te ñi nekk ci production audiovisuelle mën nañu la ko wax ok donc ça c'est un mérite qui revient à On est, là, c'est le document de le plan de travail. Donc, euh, yi ñu après draft bi mu ngi ne à base donc dañu defoon benn plan de travail plan de tournage mu nekk ni à savoir les heures les scènes à et genre truc donc comme les règles yi nga xamante ni moom la tournage laaj yëpp dañuy def le max possible pour euh, pour mën a servir yi sénégalais yi incha allah chaque dimanche benn téléfilm bu ñu mën a seetaan de cinquante deux minutes c'est c'est pas évident mais on y est quand même ñu ngi koy ñu ngi koy gérer. man nga nga ma wax yëpp ñëpp ñëpp ñëpp sëpp Lissa nday tey moom xoolal yàqule nga ban tànku xar la Lissa en tànku xar bi. tànku xar baa ngi fi góor ba dugal. <laughs> ah wax dëgg tànku xar bi nga sàcc jeesu kër fii ban dagg lañ koy dagg soble bi. ña dagg moom. day wax ko boog. Abdou Diouf ak Ablaye Wade. dagg ak soble Abdou Diouf ak Ablaye Wade. <laughs> loolu am. wóo wóo dina la rama ne jàlloo dina la sukkal wóo wóo la rama chéri xooloo eh, <laughs> eh, ni ah, <laughs> ma jeexee. reetaan na. rey na rey na. abali di si. ba pare eh, <laughs> non attendez. mais ñoom sponsor yi jox nañu xaalis mais xaalis bi yépp dañ ko dugalaat ci un café avec mais man li ma ci intéressé woon mooy défi woon xam nga mënoo dem ci nit ñi wan leen sa produit ñii gëm ñii gëmuñu ba pare am ñoo xam ne jën nañ risque pour accompagner la ba pare nga ñëw di leen recevoir loolu moo tax li ñu ci intéressé woon année bii du du woon wut xaalis. c'est vrai que l'argent joue un rôle l'argent joue un rôle. tu vois moo leen motiver tout ça quelque part mais euh, challenge aspect challenge tam mi ngi ci woon quoi te li ma wax aspect challenge boobu c'était surtout par rapport ak euh, ak challenge de produire <laughs> chaque semaine benn affaire bu bees. du Nord ça ne serait pas donné ak challenge aussi euh, toucher public bi ba nga xam ne nii tu crées l' ba nit ñi di ko xaar. en un certain moment je me suis rendu compte que sénégalais dañ ko bëgg tu vois dañ ko bëgg dañ ciy waxtaan tout le temps xam nga mu intéresse yi donc voilà mu nekkoon challenge xam nga daraan métti franchement daraan métti parce que c' était pas évident que ngay produire benn film de cinquante deux minutes chaque semaine. te ba pare ci biir semaine bi nga koy tourné. l'essentiel c'était que ñu defar lu baax même buñ ciy passé des journées des heures des mois ñu defar lu baax te tey sama satisfaction mooy ki nga xam ne sax dafa teg taabal ci mbedd teg chupome di jaay bu deux heures jotee une heure et moo dajale lu muy jaay dem toog këram ne day xaar un café avec loolu rek doy na doy na récompense quoi wutuma ci dara loolu rek doy na récompense xale bu ndaw boo xam ne mi ngi nekk jardin d'enfant jardin nga koy defal fête ñëw egsi ci école am mu ne la anakati xale bu ndaw xale bu ndaw 4 ans cinq ans mu ne la uwekat yi doy na satisfaction doy na satisfaction wala uwe baxa yoxu yow tata Nday wax na la lii loolu rek doy na satisfaction. demoon na benn moment boo xam doo mun lâcher aussi parce que tu sentais qu'on était sur quelque chose qu'on était sur quelque chose quoi tu vois et c'est quelque chose là euh, dépassé woon na suñuy petite personne exemple la parce que quand tu vois l'attente tu vois ay ñees yi nga xam dañ koy seetaan di tu vois je veux dire tu dis que tu as une responsabilité aussi quelque part de parler de la société d'une certaine manière Hmm? parce que am nga leen am lu gën a jafe mooy nga am nit ñu lay déglu ça tu là loolu c'est difficile à monnayer quoi tu vois donc ma sama permis de traiter des choses yoo xam ni dama koy waxtaan ak ay copains nii nii nii joxe sama point de vue tu vois mais tey dañ ma jox dañ ma jox audience boo xam ne nii dafa xam la donc mën naa wax ma li ma xalaat te kenn du san censuré mais ça c'est ça c'est loolu mënoo ko jënd quoi xam nga loolu kenn mënu ko fay tu vois loolu c'est c'est c'est assez extraordinaire quoi donc man je me ci côté boobu quoi dañ suivre émission bi na toog parce que gars yi tax nañu léegi maire yeeg xale yeeg ñëpp kenn newatul fenn ñu ngi koy kar di ko c'est vraiment intéressant parce que euh, dafay wane exactement réalité bi ñuy dund suñu dëkk ce qui fait que gars yi amuñu temps si si émission bi que j'espère que ça va continuer. pour la première fois ñu def genre émission émission vraiment baax na day yeete. nit ñi dinañ si jël leçon surtout les femmes mariées parce que soo amee sa jëkkër aussi toppatoo woo ko beneen jigéen jóge fële gën la jonge toppatoo ko. film bi nice na trop man j'aimerais bien genre film yi téléfilm yi ñu ñu continuer di ko jouer ah plusieurs fois quoi ñu xamante ne au moins sunu sunu sunu sunu sunu ressource ñu xam ni instant yi ñun am nañ am nañ dara quoi am nañ ay talentueux ba pare am nañ ay ay ay ay ay choses yoo xamante ne on peut le diffuser partout dans le monde quoi. lu tax ma wax si c'est pas parce que émission bi ay jeunes que joué dafa nekk ay thèmes yoo xam ne réalité la jeunes yaa ngi koy dund te ñun jaboot lañu du ñu am ay doom donc ñu am ñu ciy gis yoo xam ne ni vraiment réalité la réalité li ñun joué yëpp réalité la moo am ci si dund bi donc ñoo ngi koy suivre bu baax a baax a baax. jàpp naa ni un café avec askan wi ak xeet wi am na lu mu leen indil. parce que man gis naa kilifa yu bari yoo xam ni un café avec bu jotee liñ daan def yëpp dañ koy bàyyi ñëw toog seetaan ko fi mu toll nii Sénégal ba village yi gën a reculé maanaam am na benn village bu ma Boubacar doon wax ni ma village bi dafa soreeg benn village boo xam ni chef de village bi dafa am télé bu dimanche jotee nit ñi dañuy dañuy rangaloo dox lu mat ay 7 kilomètres pour dem seetaani un café avec réew mu dëkk boo dem ci senegal tey bu dimanche jotee 14h dëkk ba day taxaw ñëpp di seetaan film bi xam nga loolu déjà loolu rek déjà bu fekkoon ni un café avec loolu lay indi jar na ko ba pare nag ñu jublu ci aussi yeete ak wane nit ñi seen dundin wane nit ñi ni société boo gis moom ñu siiw ñeeg ñu siiwul ñeeg ñi am ak ñi amul ak ñëpp a yem ñëpp am seeni problème ñëpp am seeni jafe-jafe et ñu wane ci lu bari lu xew tey maanaam mbiru ay takk suuf mbiru xale jigéen yi filmer ay xale yu góor di leen chantage loo yooyu dafa am ci àdduna yooyu yëpp yeete la yoo xam ni film def ko indi donc loolu jàpp naa ni aussi ci la un café avec indi ci la bokk. impact bi mu am si chaîne bi heureusement qu'on a eu l'ouverture ñun li nga li ëpp importance pour une chaîne de télévision s'il y a un programme c'est deux choses c'est que programme bi am audience programme bi am. Euh, andi euh, publicité te programme bi am na ñaar yooyu am na audience am na publicité mais de l'autre côté ça aussi aux Sénégalais de découvrir plus ou moins comment les gens vivent en couple comment ils vivent en famille comment sont les Sénégalais. j'ai trouvé que bon que malheureusement théâtre ñi teg ak yenn téléfilm sénégalais yi ñu ngi koy traité la vie du couple c'est de manière assez superficielle gars yi ñu dugg ci biir am. ça moom la comme un normal quoi mais souvent dañ koy survolé di wax affaire culturelle bàyyi dëggantaan nit ñi quoi nit ñi les individus nga xam ne nii en fait euh, voilà ñoo dund yooyu quoi ak nan lañ koy dundee ko euh, émission bi daf ma neex c'est un peu intéressante parce que dañuy wane nii nan la nit ñi di dundee homme public yi wala góor yi am jabar yi nan la ñuy dundee euh, hors de seen kër comme par exemple DJ Boubs mi ngi am jabar di gëmloo kat yi loo xamante ne amul day tàggoo liggéey alors que liggéeyiwul. dañuy wane carrément lan moo am ci société bi parce que daf fi bëri aussi góor ñi ni ñuy naxee seen jabar yi wala gars yi di tàggoo ay séminaire wala ay liggéey pour di dem takk ay jabar takku suuf genre affaire yooyu mel noonu bon je peux dire que dañuy wane li xew fii ñu xamul aussi femmes yi nga xamante ne dañuy toog seen kër di sëy xamuñu lu xew daf leen gën a wan yoon bi gën leen wax tamit li xew ci dëkk bi aussi c'est ça. film bu am sens la li ma dégg ñu ne dañ ko war a dagg dañ koy dagg waruñu ko dagg ñu ngi def lu am lu am sens daal am na solo torop ci société bi su commencé kenn du tal sax añ dañ koy suivre seetaan ko mais su ma sañoon tamit ñu koy teg ay à partir de 16h suñ koy teg suy amaat daal heure yooyu moo gën daal. chaque dimanche damay bàyyi sama lépp toog di ko suivre émission bu neex la buy yeeta la ndax ak suuf daf fi bëri ci dëkk bi lii la nga dund actuellement vraiment lu ma neex la. lii saa lu muy def man neexuma muy nangu jëkkër jàmbur yi nii moom safuma wax dëgg yàlla doonu ko woon def pour man xam nga parce que dañuy souffrir lookale te moom mu ngi baax ba bëgg dee gentil ci film bi affaire yi nice lay def mais lii saa moom lu muy def niceul trop ma neexu ma nit yi dañ koy seetaan seen kër tu te vois dedans tu te vois ci relation boobu entre jaka jëkkër ak jabar mais ci relation humaine yi liy xew ci kër yi entre euh, ñi nga xam ne borom kër gi la ak ñi nga xam ne ñooy liggéey ci biir kër gi ni ñu leen di traité et tout sax et puis je pense que am na benn côté bu am bu bu bu intéressant si un café avec mooy dama gis que euh, xaw na nan laa leen ko mën a domestique yi nga xam ne ñu ngoy liggéey ci biir kër gi je vois que vraiment et c'est c'est très important parce que xam nga ci suñu société yi voilà ci suñu société yi dañu yàgg a gis que ni euh, nit ñi nga xam ne dañuy liggéey ci biir kër yi des fois respect bi ñu leen war a jox duñu leen ko jox dañ leen di doo tëdd fi nit di tëdd mais j'ai vu que vraiment ci biir affaire bi à la limite ça se passe ça ça passe dem ba benn moment mm-hmm. tu te voilà bakkal na ko wala vraiment tu sens et puis pour man nga xam ne ñooy dund ci kër gi di fa yeewoo yooyu yëpp war nañu am benn benn euh, confort bu ñuy dund ci kii bi quoi donc boo xoolee tuuti si si série bi dafa bëri ay ay jàngat quoi. en fait li ma utiliser comme méthode mooy que waxuma kenn ne maa koy bind. ça m'arrangeait un peu parce que générique bi daawuñu def sama tur ok kenn xamu woon même là où je travaillais au niveau famille à part une ou deux personnes kenn xam woon ne woon maay bind. donc dama doon am benn retour boo xam ni retour bu honnête ok dañ may wax dëggantaan na la ñu gisee affaire benn. deuxièmement aussi ça me permettait de tester des choses ah pour rajouter yenn personnage yi ak yenn intrigues yi mun naa cabaxal quoi benn affaire après gars yi dañuy réagir donc naa xam à peu près hmm, est-ce que bii c'est une bonne idée ou pas tu vois ce que je veux dire donc noonu loolu ça m'a beaucoup aidé ça m'a énormément aidé le fait que nit ñi xamuñu man maay bind ba pare ma nekk ñoom di ko seetaan ak ñoom di leen poser ay di laaj ay affaires chaque fois dama naan seetaanu ma ko épisode non seetaanu ma ko seetaanu ma ko la gars yi retenir dafa xamuma la lan la. donc ça sa a été extraordinaire bon léegi c'est ah moo dul am donc challenge bi dina gën a métti peut-être mais loolu loolu euh, loolu c'était très important beneen affaire bu bu bu am solo tamit mooy le fait vraiment ça c'est une satisfaction et que je partage avec toute l'équipe évidemment mooy que ngen mën def épisode le lendemain tout le monde en parle ensemble ça veut dire que dinañ toucher dara loo xam ne ñor na Sénégalais et ça c'est un combat boo xam ne nii c'est-à-dire on va beau parler de télénovelas et tout ça tant que gagné wuñu boobu combat moo ko lii daal télévision nekk reflet wu sénégalais yi seen i doute seen i envie seen i angoisse seen ambition et ça moom la loolu mooy njariñu télévision donc je pense avec cette série là toute proportion gardée je pense que réussir nañu ça c'est c'est très important et ci foofu franchement ma je voudrais que euh, cela vous me permettrait ma rendre hommage à quelqu'un qui je pense moom moo moom moo euh, balisé terrain bi mooy Cheikh Tidiane Diop moom nekkoon daal coach parce que étant enfant tu vois ba ñu doon seetaan théâtre yeeg yooyu moom chaque fois su defoon benn pièce c'était un événement kër yi moom la ñuy waxtaanee le lendemain dans les moom la ñuy waxtaanee cest dire que yàlla mayoon na ko mu mu mu mu mu toucher du doigt sénégalais yi lan la ñuy dund ak lan la ñuy séntu lan la ñuy yëg. et ça c'est très important c'est-à-dire très important donc euh, loolu satisfaction la satisfaction la que nit ñi ma gis ni dañ koy waxtaanee di ci débat ki waroon def ni ki waroon def ni position wu lii par exemple bi Malick ñëwee ak Kati Boub donc je dis ça ça a été un truc boo xam ne nii les gens waaye Kati est-ce que la waroon réagir takk suuf bi bon ça c'est ton idée takk suuf bi jox na ay affaire tu vois je veux dire donc je pense que satisfaction yi foofu lay jógee quoi. Ahmed ne comprenait la moo tax suuf quoi xam nga parce que du woon moom xamu ko woon quoi te newoon na ne ko noonu si parce que loolu dafay am lu bëri quoi xam nga Sénégal les Sénégalais n'en parlent dafay am lu bëri quoi. non attends écoute-moi ne la woon kenn waru ko yëg sama mbokk keneen a ci yem mais yow yow yow. léegi sama kër kaw. bu duma dugg rek nga laal gâteau bi de kat bu laal lii. tey ma sama daal ko duma dugg rek nga laal gâteau bi de kat. non. si biir tey ma daal yow rek bu bakkaat. Bizarro. Vacaria. Não vai ma li ma gën a marqué ci film bi mooy bi Lisa ñëwee ci film bi parce que xam nga Lisa dafa indi beneen second souffle ci film bi. un jour Lisa ak Bakayoko c'était pour sortir un peu d'une intrigue boo xam ne da doon figé histoire bi. ci diggante kat yi ak buub uniquement cest à fa la ñu am yeneen affaire yoo xam ne mooy gën a révéler caractère u ñeneen day mel ni baa nga jël lumière teg ko fenn pour mu indi reflet ci kii bi c'est-à-dire que personnage yi tam loolu la ñuy servir un tout petit peu cest ñuy dire dañuy révéler dañuy révéler nature réellement les personnages principaux mais mooy loolu ak tamit enrichir un peu intrigue yi nga mën a créer ay sous intrigue affaire de mel noonu quoi donc loolu moo doon loolu moo doon kii bi mais à vrai dire aussi je dois reconnaître que pour euh, personnage Lisa bi ak euh, bon c'est vrai que Lisa c'était c'était c'était rajouté personnage gardien bi aussi mais yooyu c'est des discussions aussi avec le réalisateur donc il faut il faut être honnête c'est des discussions avec le réalisateur moom mooy tax nga mun a élargir affaire boobu parce que man mun ma toog rek a parlé on a moo tax nga mun a élargir parce que c'est lui mooy réalisateur donc il a une prise directe sur ce qui se passe sur tournage ak tamit réalisateur ak tamit acteurs yi ni muy demee donc fallait créer cet échange là donc échange ba mu amee ba yëpp d' accord ça a été facile mais c' est surtout pour élargir quoi élargir a gën a révéler nature suñu personnage principaux. kat si bi moom ma woo pour ma mu contacter ma pour ma ñëw ma ñëw si parce que dafa waaw la début début pour ma ñëw participer si jour boobu la ma invité après bi ma ñëwee. si laa ñëw aprè Leuz ak Bofs gis ma proposé ma pour séjour boobu parce que peut-être gis nañu ni que mën naa def seen rôle bu ñu bëgg après ñu laaj ma ñu proposé ma ne nga mën naa jouer sa après noonu si laa si laa si laa commencé ak affaire rek. te foo nekkoon ba léegi. mais dama demoon julli ji. ma ngi lay woo boobu ma wuyoo dama dem dama dem nekk si jumaa ji di wuy téléphone. nga bippé woon sax. ban xar bi indi nga. xar baa ngi ci suuf. ñëw na rëy na. rëy na am na béjjén. am na génn bu gudd. génn pour lan. waaw si la nag xar lan day am génn bu gudd. ak béjjén waaw pour ci jour tabaski. lii laay laqee ah. mais lii sax lii. ku nekk ak sa façon bàyyi ma de man lii laa am naa yére wolof. mais lii laay yëg lii laay lakkee sama yàpp bëgg a lu may sol yére olof di lakk yàpp muy lakk di samay par samay ma sonal de xar maa ngi ñu intéressé woon ci année bi mooy objectif boobu atteindre nañ ko mooy lan mooy installer marque cest à nit ñi xam émission bu bees buy exister loolu moo ñu intéressé woon année bi te loolu yàlla dimbali nañu ba am nañ ko maanaam tey boo nee un café rek nga dem ci village bi gën a tuuti ci Sénégal wax leen un café rek xam nañ mooy lan. tournure bu mu jël daf ma wan ni wan sénégalais yi ne lépp loo xam ne da di telenovelas yuy jóge Amérique du Sud ñu koy jëndee cinquante millions ba cent millions bu ñu joxee réalisateur yi nekk senegal wala yi nekk Afrique. ay budget yu ñu toll ñu defar ay film yu raw telenovelas yi. il y a des de jeunes. qui ont des projets et qui sont là hmm, lu leen manque rek mooy producteur quoi et je pense que peut-être un café avec dina jox opportunité peut-être suñu suñu njiit yi wala les producteurs ñu def confiance euh, de jeunes sénégal comme man comme ça ñu mën a produire des films yoo xam te ne day raconter suñu réalité xam nga na yeexale yi ah, xamal leen seen culture xam nga ba pare wan leen ci yoon bu ñu war a mën a jaar tu vois euh, je pense que man loolu mooy def un peu sama fierté ci un café avec c'est-à-dire que c'était juste pour montrer quelque ne c'est possible quoi que ay jeunes sénégalais mën nañu produire quoi de bons films quoi même su fekkee un café avec c'était pas très parfait tu vois mais les jeunes sénégalais mën nañ def loo xam ne dina neex sénégalais yi. il faut que ñu wóolu suñu bopp bañ di dem di seet toujours à l'extérieur pour indi ñu liggéey fii bëri na loo xamante ne mu ngi jàll ci télé bi fii lañ koy liggéeyee te mën nañ ko yokk donc il faut que producteurs yi wóolu sénégalais yi di leen confier ay ay projet di leen jàppale ba ñu mën a exécuter euh, ba ñu mën a yóbbu audiovisuel sénégalais sori. chaque dimanche dama koy suivre il m'est arrivé une fois sax may togg sama cin ceeb bi xam. ndax un café avec. film bu nice la film bu nice et puis ki ko joué aussi vraiment bett na ñëpp man bett na ma quoi kii affaire la boo xam ne bu ma segoon man li ma koy li ma koy conseillé mooy na deuxième partie bi na am deuxième partie am troisième partie na continuer daal. parce que am na sens et puis am na amul loo xam ne day mën a yàq xale yi xam nga et am na am na sens daal baax na trop daal. émission bi émission bu yeete la. waaw parce que actuellement lii moo fi am ci dëkk bi mais man dafa am benn euh, affaire bu ma xaw a jaaxal ci émission bi parce que pourquoi books aawam kenn du ko wane. man émission bi avant daaw ma ko seetaan mais léegi dama si intéressé wu léegi nag ñaar ñoo ma kii euh, def ka mooy nday Diallo ak Bakhayokho parce que Bakhayokho gardien la ci biir kër gi mais mu ngi def bu pour jéem a corrompre yaayu Ndeye Diallo. léegi nag loolu yëpp dañuy yeete parce que nit mën na ñëw gëm loola benn affaire parce que koo xam ne gardien la ñëw gëm loola la moom moom président ñoo frère yu yaayam la je sais pas xuma frère papam ñëw gëm loo leen loolu fekk na ay waxu neen la maire yi tamit lii yëpp dañ leen parce que tamit sa doom boo amee war nga xool ci ki muy dugg bul gis nit mu ñëw rek wax la ay vérité ay ay waxam nga ñëw jël ko gëm ko parce que tamit baxayo ko ca dëkk ba la jógee booy may sa doom da nga koy may ci waa fii mais doo xool koo xam ne xamoo fu mu jógee fu mu sosoo ñëw gëm loola benn affaire nga ñëw dem déjà maire bi au début intéressé wu woon ci kii mais ba mu gëmee gisee ne kii doomu président la mu ngi bokk si famille bu riche mu ngi commencé intéressé mais tamit yenn yi xel a koy mottali parce que su fekkee ne doomu président la ba pare mu commencé di garder loolu c'est un peu avortement femme bi metti na ma trop en même temps encore euh, Lisa bon ni ni ñu leen boolee hospitalisé ñaar vraiment doon na loo xam ne lu triste la ci man quoi ak cas bi ni mu dalee Boubacar quoi en tant que góor maa ngi xalaat. Boubacar boppam quoi. li ma gën a bëgg a xam nag mooy ndax kat yi ndax dina ñëwaat ci bubsu ak tam day tam nu mu mujjee ak baaxa yoxo ak Liza tam ndax dina dellusiwaat ndax ndax kii dina ko fotaatam déet euh, Boubacar Diallo. bëgg nañ xam tubaab bi fan la jóge ak moom ak Liza euh, lan lañu ñu seqoon ba mu ba mu ba tubaab bi war a mën jóge ñëw nii. te xamuñu moom ak Lisa fan lañ lan la ñu seqoon et tout genre xam nga léegi nag bëgg naa xam aussi ndax Lisa dee na ou pas. Lisa peut-être day dee dundaat ah I don't know peut-être day dee peut-être day dund je sais pas franchement fu mu nekk honnêtement euh, parce que piste yi piste yi bëri na ba nga xam ne nii euh, décider mënuñu gën a décider quoi ndax day dee wala day dund. public moom bëgg na mu dund je sais que gars yu bëri ñu ngi naan mu dund ko on verra. plein d'émotions dans Un café avec Orange, leader du mobile au Sénégal et dans la sous-région, CMS, la crédibilité d'une grande institution financière